وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi ànd ak yéen ak mbégte ci li nga xam ne moom mooy semaine du patrimoine de Cheikh Ahmed Bamba fii ci Dakar mbokk yi xam ngeen ne nag tey nag lañ ñaareel bu fan bi di le trois janvier ci biir musée bi xanaa ñu ànd ak yéen nag ci li nga xam ne moom moo fas yéenee am tey bisub tey bi ci programme bi ni koy suba ba léegi nag xam ngeen ne li nga xam ne moom moo fi am moom mooy présentation ak euh, vente des photos ñu koy wéyandi ndax solo ndajeem yëpp loolu moom moo fi am nit ñi nag ñi ngi ñëw ku ci nekk yaa ngi fësal sa barkeelu ci photo yi di xool tamit xaalu nataal bi nga xam ne moom nga gën a bëgg waaye tamit di ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom moo jëm ci biir exposition bi nga xam ne donc ci suba euh, ba léegi nit ñi ñu ngi dem ak a dikk euh, gis tase nañ sax sànq ak kilifa yu mel ne Mame a Sall euh, ci benn maanaam lu mu bind ci livre bi nga xam ne moom la ñu teg fële ci visiteurs yi ku ci nekk rek fësal sa kàddu wala sa yéene ci bis bi waaye tamit nag li nga xam ne moom moo jëm ci programme bi nag ki nga xam ne moom mooy sëñ Bassirou Gueye dana fi def benn waxtaan bu am solo Euh, waaye tamit ki nga xam ne moom mooy sëriñ Xaadim Guèye dina fi jàng tamit euh, bu ngoonee tamit ñu wëyal li nga xam ne moom mooy euh, vente yi waaye tamit wëyal li nga xam ne moom mooy visite yi ak ci biir nga xam ne moom mooy musée bi dañ koy wëyal di nag ba juróom-benni fan incha allahu rabbi démb gis ngeen li nga xam ne moo fi am ci cérémonie bi kilifa yi ku ci nekk ni nga fësalee sa cofeel ci bés bi xanaa rek euh, ñuy fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy programme mu tey bi ci ay ziar ak ay visite yooyu yëpp nag suñu mbokk mi nga xam ne moom la ñu àndal di sëriñ Mbacke Sy dina ci ànd ak yéen ci ay image yoo xam ne maanaam fu fu waay jóge rek dina ñëw fësal ci li nga xam ne moom mooy bés bi tey alhamdulilah tur bi naka. soxna Ndeye Mati Sène. tey da nga ñëwoon ci musée bi ñëw ci li nga xam moom mooy exposition bi jaar na ci vente bi dafa mel ni sax yaa ngi téye li nga xam ne moom mooy ci nataal yi euh, ban yëg-yëg nga am bi nga téye gisee bi nga wecceekoo ci photo yi ba pare gannaaw bi nga defee tamit visite bi. waaw wax naa ne fi mu ne nii nag dëgg yàlla euh, sama yaram dafa daw euh, pour wax sax émotion bi dafa rëy lool. Euh, di sant yàlla rekk dinaan naan alhamdulilahi rabi alamina di ñaanal sëñ mu Muntaxa sëñ Touba yàlla na fi yàgg te wér ndax lii lépp it ci ayam la euh, tey buñ toogee ba ñëw ñu di ñu won ay nataalu sëñ bi te jàppoon nañ ne benn nataal la am tey ji bu ñëwee ba mën a wecceeku ay nataalu sëñ bi di fàttaliku histoire euh, fàttaliku tegu xeeru ñu may Jurbel ji wax dëgg yàlla euh, dañuy sant rek ñun askanu murit askanu jullit yëpp taalibe yëpp dañuy sant euh, ak di sant ñi nga xamante ñoo taxawal liggéey ba tey ji exposition bi mën a am bu ngoonee moo am conférence bu subaa ñu war a waxtaan ci soxna jaara wax dëgg yàlla daal euh, dañuy sant yàlla rek di ñaan yàlla na yàlla def tawféex ak taysiir ak najaa daf ñuy saa su ne daf ñuy dolli di ñu ñaaxaat ndax soxna jaara mooy genn jigéen ji am màggal gi kon fu ñu toll moom ñun dañu war a dafa war a doon royukaay ci ñun rawatina ñun murit kon nag thème bi am na solo lool ci ñun jigéen ñi ci ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo njaboote ñëpp euh, di sant rek di ñaanal suñu maam soxna Jaara Laay euh, fa mu nekk yàlla na yàlla yokk leeram suñu maam borom Touba ak suñu kilifa yi ñu jiitu ji yëpp di leen ñaanal. nataal yi moom wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd lool ab bu ma yeggee daal en tout dinaa ko cadré ba mu rafet. ah wékk ko ci kër gi fu ma ko mën a wékk yëpp ma wékk ko fa ah, ku dugg xam ne fii moom këru taalibe la xam nañ ma sax ci taalibe waaye nag lii moom dafa nekk loo xamante ne nii dafay gën a dooleel ndaxte photo yi bi ma ko njëkkee gis ci wat WhatsApp xel mi am naa sa xarit bu ma woon ne ma ndax foto yi réalité la mais boo duggee fii tey jii ci musée bi ba ñu won la jaar-jaar bi di xam ne lii ndax xaalis bu takku la ci taalibe murit yi def ñu ngi leen di jaajëfal ngir indi ko fii mën a indaale album ki nga xamante ni moom moo jëloon photo yi pour mu nekk loo xamante ni lii moom véracité la. fàttali ñu tur bi. Momadou Faye laa tudd. foo jógee. Touba. tey da nga ñëwoon ci exposition bi gis nga fi lu la lu la gën a yéem ci mbiri sëñ bi encore. li ma fi gis kay yéem na parce que mënuma wax sax liir liir naa ba sonni li ma ci soxlaa liir yëpp. yenn yi dégg naa ko yenn yi mësuma koo dégg mais mbaxana mi mu soloon dàll yi mu doon sol kaala gi wantaay bi baraada yi ak kaasi boppam yi loolu moom ma ci gën a yéem niñ ko mën a garder ba heure bi ñu mën koo tegaat bët surtout mbaxana mi nag loolu moom moo ma ci gën a yéeme ak yeneen ndax Sëñ Tuubaa moom bët rek yàlla dimbale ci nga gis ci loo xam ne lii da lay loolu moo tax ma tey man dama doon liggéey tey am sama deux jours ma ne négal ma daw ñëw Dakar ci exposition xool fi siyaare fi delluwaat fi mu ne nii damay dellu nit Touba. wut nataal wut naa ci nataal yi wut ci kafe gi yóbbuwaale barkeeloo ko amul benn affaire la de te doylu ma danaa amaat danaa ñëwaat dindi saat incha allah. bëgg nga daal naa bu baax a baax. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي